अल्लाम les internautes de Kadior Media asalaamaaleykum les internautes de xibaar 221 TV asalaamaaleykum les internautes de Kabir TV mën nañu mbégte ak contentement bu baax a baax tey nag tiis ak nakar lañu yeewoo fii si euh, diwaanu Thiès quartier Ngent benn xale bu góor bu tuddee Mouhamed Ba moom moo tànd boppam euh, d'après nag les informations nag moom nag quarante deux ans la am am na ñaari jabar am ñaari doom Mauritanie nag la jóge ñëw fii Sénégal euh, doon indi papam ak yaayam pour ñu ñëw fajul Euh, d'après nag les informations nag papam sëriñu daara la moom tamit moom day jàngale ay six heures du matin moom la euh, cas bi daal di am ba ñu gisee nii dafa dafa xar woo nañ police police nag mu ngi ñëw ay huit di du matin euh, sapo tamit moom tamit mu ngi ñëw ay huit heures et demi neuf heures et demi parce que ñoom tamit dañoo xaw a tardé waa koñ bi ñoom ñëpp génnoon nañu ah lan moo tax mu xaru nag loolu nag maanaam kenn xamu ko d'après nag les informations yi ñu jot maanaam si seeni waa kër euh, dafa xawoon euh, un peu inconscient euh, xawul woon normal à cent pour cent nag waaw police nag ba mu ñëwee def na enquête am daa koy jébbal li nga xam ni maanaam moom mooy waa sapeur pompier waa sapeur pompier ñoom tamit ñëw nañu Euh, aji li nga xam ne maanaam moom mooy koor bi wàcce nañ ko ñu muur ko ñaari dara daa koy yóbbu euh, loolu daal lañu jot si wàllum information xam na bu si kalamee tamit dinañu dugg si kër gi xool euh, yeneen information yoo xamante ne pour ñu daal lañ koy baaxee parce que kanam incha allah